mu ngoog ñuy dalal Moussa Diakhaté acteur politique la yor kàddu convergence bokk gis-gis nga xamante ne Pape Diop moo ko jiite alors jaxate ñu ngi lay nuyu. sëñ Jacques maa ngi lay fay di la nuyu di nuyu sa auditeurs yëpp yi nga xam ne ñu ngi déglu ci suba si. sa njiit moom Pape Diop gëj nañ koo dégg fu mu ne. waaw président Pape Diop mu ngi fi de xam nga moom nag. Hmm. woo xam naka jekk mosta bari. Hmm. waaw mosta bari wax nag c'est vrai. nit ñaa ngi koy laaj waaye nañ xam ni mu ngi fi mu ngi ci liggéey du ñàkk ci fan yu néew danañ ko dégg. xëy na ñu dégg ko ci mbiru Ousmane Sonko ak euh, li nga xamante ne moom lañ koy toppee wàllu siif gis nañu yëf yi fa mu tollu ci assemblée nationale yow ban jàngat nga ci am. waa jàngat bi ma ci am rek mooy bi ci Sénégal yi yëpp am ci profito rek di fàttali ni donte déggoo président Pape Diop ci mbir mi. ci hmm. jëmm ak ci kàddu boppam. waaye jàpp naa ni réeré woo mbir ni assemblée nationale keroog ba conférence des président yi di daje. Hmm. am na ñaar ñoo xam ne nii dañoo bañ voté levée immunité parlementaire bi muy la présidente Yayman Albis bu bokk gis-gis jiite jigéenu bokk gis-gis ak l'honorable député Cheikh Bara Dolly Mbacké jiite groupe parlementaire bi. Hmm. mu mel nii rek ni kon jaayu jotee rek. parti ba fa mu war a taxawee rek la mu war a def da koy def xëy na nag dañoo doxul ci buzz. wala itam xëy na ni ñuy doxalee wuteeg ñeneen ñi buñ dellusee nag ci Ali Kala ji mooy liñ ma laaj. Hmm. xam nga fi jamonoy toll. Euh, ku wax rek te yàlla tax bari na lu leerul ci bopp nit ñi. Hmm. am na nag yuñ ci seetlu. mooy ni gis neen ñi daal coow li bari na waaye ñi ñu waroon dimbali mu gën a leer muy taskati xibaar yi. Hmm. dafa mel ni da ci am ñaari pàcc yu am solo ñoo xaw a gën a lëndëmal miiri ñii ñu ngi fexe nu ñu gën a dugalee l'honorable député Ousmane Sonko ñee ñu ngi fexe nuñ koy fexe setal ba mu bañ a dugg kon mu mel ni jeu bi leeragul waaye en tant que acteur politique. Hmm. moom mu nekk acteur politique mu nekk opposition ma nekk opposition réflexe première bi mooy être solidaire en attendant ñu xam fu mbiru di yeggee di ñaawlu yatim yenn doxalin yi wala yenn jëfin yi yoo xam ne ni jàpp naa ni yokk fitna lay def waaye du leeral dara. Mhm. nga wax ni seen député moom ànd na eh, maanaam daf ko contre voté wu ko ci assemblée nationale maanaam position bu parti bi la lan moo waral ngeen jàpp ni kon da ni voté contre. waaw lii ni ko ñëpp waxee rek defe naa ni groupe parlementaire ci leen bokk te dégg naa ni dégg nga le président Cheikh baara Dolly Mbacké euh, li nga xam ne ni wax na ko. ci par rapport ak plainte bi contre x na la buñ ko defee contre x ñoom duñ ko woote mel na ni kon leeragul mel na ni joxoñu ñu tuuma ni uma ni Ousmane Yawa ñi koy ñi ko koy jiiñ waxuñu Yawa yooyu yëpp bokk ba pare itam ñu jàpp ni xëy na am na loo xam ne da ci laloo loo xam ne xëy na politique rek la comme dalul seen xel ñoom. Hmm. ñu jox bénéfice du doute ki nga xam ni mooy Ousmane ñoom ñëpp ñu àndandoo ne du ñu ànd ci li nga xam ne ni mooy dindi malaanum kiiraay bi nga xam ne ni député bu nekk yellool nga ko ci ci sa liggéey ak sa taxawaay. alors balaa ñu fi waroon a egg. ndax jàkkaar euh, yaakaaroon ni dëgg la naam li nu koy euh, toppee li ñu koy tuumal wàllub euh, sifflet ci ab lieu privé muy salon de massage Sonko ak dayoowam ak fi mu toll tey jii ndax yaakaaroon ni tamit lu ni mel mënoon na ko moytu. waaw xam nga dog-dog euh, moom du weesu cat itam du weesu waaye itam am na loo xam ne nii itam lu mat a bàyyi xel la ndax Ousmane Sonko bi nga xam ne nii moom moo nekkoon candidat demagul ak élection ci sama gis-gis gu gàtt jàpp ma ni bokk na ak Ousmane Sonko mi nga xam ne ni moo nekkoon troisième à l' présidentielle jàpp naa ni lu mu doon def rek benn ca bam mu doonagulee troisième à l' présidentielle bi mu ko doonee daf ko war a def fukk en terme de vigilance ndax que dégg naa ci ay yenn nit ñu sa demoon na ci moytu ba buy tukki du yóbbu saak boo tolloo foofu nag ci moytu mooy sa ñaaw nga njortu ñaaw njortu ñi nga jàqal ba nga xam ni waroo itam di bàyyi xel di dem ci foo xam ni. Mm. xel mën na fa ñaawee rawatina nag bu fekkee ni fa nga dem. ak la nga tax dëggantaan yaay nga war fa dem taxul parce que itam yàlla moom moom dëgg. néew ma ni def na néew ma ni deful waaye jàpp naa ni salon boobu du salon bu ñuy fajee ku sa ndigg métti te nga xam ne nii waa kër doctor ñu ñuy wax kinésithérapeute ñoom ñoo ko war a faj jàpp naa ne ci wàllu woowu comme ni ko président Abdoulaye Wade waxee rek dafa mel ni inexpérience dafa xaw a judd ndax sooy moytu rek ci wàllu politique na moytu gi mat fépp ak ñëpp. Mm-hmm. rawatina nag foo xam ne nii boo fa demee même bu dee amul nit mën nañ buñ la tuumaalee xel dana jiixi jaaxa jàpp naa ne bu fa demuloon coow li yëpp mën naa ñàkk loolu daal mooy suma point par rapport ak question précise bi nga xam ne ni laaj nga ma ko. Ah, solidarité boobee tamit lu mooy li seen député nekkoon du ko voté ci assemblée nationale est-ce que xeex bi bàyyi leen ko sonk yi si kese. Euh, du xam nga moom lay faral di wax ma ni xeex bi. Hmm. ñu ko jàppee rek tënk ko ci nit rek dañuy juum. opposition bi fi mu fayree te yëfe naa ni wax naa la ko waxati la ko bu njëkk mooy ci njëlbeen ga li ñuy wax problème mu solidarité. Hmm. li ñuy wax problème mu sincérité. dafa des ci ku jegi bu baax a baax a baax bu ma jëlee rek ci njëlbeen gis nga jamono ji nga xamee ne nii CREI yi mu ngi woo di topp Karim Wade. Hmm. ñu mm. bëri dañoo jàppoon ne yëfi Karim Wade la ak yëfi PDS. am na sax ñu génn biral ko ci kàddu waaye xamuñu woon ni boobu bu ñu bàyyee mu jàll parce que CREI yi kenn d'accordu ci lañ toppee woon Karim Wade daara kenn andu ci woon waaye ñu bàyyee ko mbir mi ne ci gëlu guyam la daay bi nag di tàkk ba àgg yegg ci xalifa tey mu yegg ci Ousmane ma jàpp ni ca njëlbeen bu fekkoon ni jugoon nañ ndax mbiru liberté ak mbiru droit yoon ak ak yelleef eh, nit opposition dañuy def ab say xeexandoo ko wala nit ñëpp ñu àndandoo nërmeelu kon mu mel ni li ñu dab tey dafa mel ni suñu doxinu na dañ olof njaay day faral di wax ni euh, xaw ma lan bu yebee doxin <laughs> xaw ma lu koy waxee daal réer naa ci bi yi waaye li ma la bëgg wax mooy ni <laughs> opposition bi moom manqué de conséquence ci njëlbeen hmm. ba tey bu dee yaa ngi koy seetlu c'est des questions de clan c'est des questions de camp hmm. jamono ji ñu war a booloo doon say bokkandoo des points consensus fort ku nekk day tëgg dënnam ni mana loolu nag dafay bokk ci lu ñuy gën a néewal doole gën ñoo tas waaye du enlever dara itam ci taxawaay bi nga xam ne ni Ousmane am koy taxaw di ko xeex muy lu rafet lu ñu rafetlu parce que ñoo bokk génération. Hmm. waaye itam nag buñ ko yemale rek ni Ousmane ndax itam ci ginnaaw dama koy faral di wax ni am na yeneen partie am na yeneen leader am na ñeneen ñuy xeex ñu am cër ak dayo boo xam ne ni moom la. war a jox képp koo xam ne ni opposant nga. waaw suñu bañ. mais bañ a ci xeexin bi bañ a boddante ci xeexin bi. ni nga ko waxee euh, taxawaayam rafet na lool gis nañ ko euh, ci kon xeex gi mu nekk boobu ak léegi tey jii bu fekkante ne yegg nañu ca fi nga xamante ne danoo ngeen comme ni ko ñenn yi di waxee dañu koy noot ñu gis ni kon ki ko jiitu woon sax ci élection présidentielle yi di sa Seck moom daal dinay taxu finalement yéen lan moo leen di dese ci opposition bi. waaw xam nga wax naa la ko yéen taskatu xibaar yi. Hmm. ñun njabootu communication war nañoo gën a jox cër ñiy politique rawatina ñi ne ci kujje gi. Hmm. ndax itam nag dara yàggu fi bañ koy fàtte. Hmm. bëgg yemale rek opposition ci Ousmane Sonko ngeen baal ma ci waxin bi waaye yàpp opposition yi la. ah ñun tey lañ wax ne du démb. naam Sonko may ma ma ñëw rek naam Sonko jàmbaar la lim def lu rëy la. ba mu créé léegi ak position bi mu am honnêtement am na mérite waaye bëgg a fël wala lëndëmal ñi nga xam ne ni ñu ngi ci doon xeex démb ak barki démb jàpp naa ni du position wu responsable ndax itam nag Jacques. Hmm. am na ñoo xam ne man boo lay wax ak samay morom. te ba ñu nekkee lycée ba léegi ña ngay politique te dañ ko boole woon ak njàng te ñañ doon jàngal ñii journaliste lañ tey ñii ñu ngi ci politique bi ñii dañoo bàyyi woon di jàng rek consort bañ daan politique di jàng dàquñ ñu woon jàng buñ leen rawuloon rawuñ ñu sànna ñooñu ñu am mérite lañ du wàññi lenn nag ci mérite yi nga xam ne dañoo jàng ba pare am seen i lijaasa doolu yëngu ci politique waaye ñi ko boole woon ca ba ñuy gone ba léegi te fu ñu yënguwaan kenn mënu leen ci njàng mi kenn mënu leen ci politique bi jara jox cërle opposition boo xam ne nii PDS bi nga xam ne nii ak bi nga xam ne ñi mu àndal groupe parlementaire ñu nga fa PDS ma jàpp mën naa juum ci parti yi bokk na ci parti gën a mag ci Sénégal. mais PDS ci kan lay compter parce que ñu compter ci Abdoulaye Wade tamit. non xam nga du nit man parti lay wax appareil politique. Hmm. ni ñu mënoon wax am na jamono ni dëkk boo dem fekk fa ku bokk ci PS. Hmm. noonu la mel ci P PDS noonu la mel ci bokk gis noonu la mel feneen. ma bëgg ni yenn jeux yi dama yaakaar ni sax daa am ñoo xam dañu jóg uniquement pour jéem a féewale opposition bi. Hmm. xeex bi am solo te ñu war ko def mooy nu ñuy bokkee ku jëlu guy bokk gis-gis nag bokk gis-gis mooy point yoo xam ne ni ñëpp ñëpp dañ ci àndandoo ñu xeexandoo ko te kenn ku nekk bàyyi jeu yi ngay def ndax bu kenn du gone. Hmm. bari na ci opposition bi ñu wóolantewul bari na ci opposition bi ñu nawlantewul. Hmm. te nag gis nga ñu ñuy jéppi duñ jéppante suñ bëggee mën a jàmmaarloo am say jàppaar jàmmaarloo ñi fi nekk day fokk ñu nangoo boole doole yi. waaye itam ngir nangoo boole doole il faut que ni ñenn ñi humble ñenn ñi sincère ñenn ñi courageux ñun ñëpp ñu defandoo ab say jëmandoo xàccandoo dóorandoo sinon lu ko mooy ci ay division la ñu nekk ci ay calendrier caché la ñu nekk ci ay suspicion la ñu nekk te loolu li muy favoriser mooy nguur gi Mm, mm. léegi euh, bu ñu xoolee tamit ci ci li nga xamante ne moom mooy recomposition euh, classe politique bi euh, da nga doon wax ci li ngeen di liggéey sànq ak bokk gis-gis mooy kon fexe ba grande famille libérale bi daje. ci daje boobu xëy na sax am na ñu leen ci jiitu ndax ñenn ñi dem nañu fekki kon Macky Sall ak kon coalition am yéen bokk gis-gis tamit ndaxam bis dina ñëw ngeen dugg foofu ngeen fekki majorité. Ah, xam nga lii ma la waxoon daaw daaw jeeg laa lay waxaat ren ku sa yeewu suba wóorul wax ci suba dëgër fit mënu koo weesu. ah am na ñu ko waxoon ëllëg ñu weddi ko. waaw xam nga ku nekk ak ku nekk sa responsabilité rek man dafa am lu ma waral layook samay njaboot ba tax na lu may wax rek dama koy ñemete wax ko. position wu bokk gis-gis ak nekkinu bokk gis-gis dépendrul ci kenn ku dul ci waa bokk gis-gis ak la président Pape Diop ñu ni neen ñun ñooy xool la ñu doy la ñu gëm ñu def ko guddi yi ñu toll. Hmm. dañoo demoon ci élection boo xam ne nii dañoo jaay doole bañ ñoo jox pare éliminé ñu ñu jàppale woon président Idrissa Seck pour mu nekk candidat parti nag bu mag am juróomi député su élection jotee bokkoo daa am lu muy jur ci naxasaay ci sa wàllu électorat sa wàllu militant ñun nag ñu toll ci defaruwaat en interne takkaat jaaj yi gën a ñaaxaat sunu militant yi redum redynamiser suñu parti waajal jongante yii di jublu si muy élection locale waaye li may faral di wax ni ànd ko tollool ànd koo wóolu ànd koo ñeme ànd koo xam juróom-ñaar téeméeri parti ci réew mi dafa ëpp dama bokk ci ñi di gëm ni il faut ñuy def ay bloc bloc yoo xam ne ni ñi bokk melokaan bokk gëm-gëm bokk jëm dañu war a ànd su ko defee dinañ am ay bloc yu wóor débat politique bi dina nivelé wu programme yi dina am doole et jeu politique bi di pour man ci lay ëppee njëriñ te loolu itam nag jàpp naa ni ñëpp ci war a réfléchir. Hmm. waaye ndax président Pape Diop ak boo gis-gis danañ demam du ñu dem la ma la waxoon daaw laa lay wax ak ren sama yeewu suba wóoruma te xaw ma lu muy demee boo gis-gis rek kot donc moom moo ci mun a wax. kon maanaam mën nañoo dem comme mën nañoo bañ a ñàkk dem. déggoo li ma la wax xam nga man damay na adepte de Abdoulaye Wade te Abdoulaye Wade dani il faut dire jamais en politique te rusuma ragaluma mes positions politique hmm. comme sama parti ñu assumer ko lépp lu suñu parti jàpp ni moo gën ci parti bi seetuñ ci ma dem ba seetuñ ci ma Samba on l'applique ba jamono jii may waxee ak yow ñu ngi laal jaaj pour que place bi Macky Sall toog ñu fexe niñ ko yóbbee Pape Diop mu toog. Hmm. jërëjëf Moussa Diakhaté. waaw ma sant la gërëm la nga may ma rek ma ndog ma ma jaal. suma mag suma kilifa président Doudou Wade mi nga xam ni soxnaam dafa wàññeeku di ko jaal waa PDS di ko jaal waa Biscuiterie yépp waaye itam di ndokkeel beneen libéral muy Alioune Badara Cissé médiateur de la République nekk une fierté libéral tey di bésu anniversaire am di la sant di la gërëm di jéggalu auditeurs yépp